asalaamualeykum waa Sénégal man Ansoumana Dione njiital kuréel gi toppatoo ak ak yelleefu ñu amee feebaru xel nekk it conseiller ci ministère de la santé et de l'action sociale à la direction générale de l'action sociale maa ngi ñëwaat tey di waxtaan ak yéen askan wi gannaaw li xew Tiwaawoon démb muy tiis boo xam te ni amul ku mu bàyyi ci réew ñu fiy jaale président Macky Sall ci réew mi moom mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi ñuy jaare it askani Sénégal yëpp waaye di beneen jàll xalif général des Tidianes moom mi nga xam te ni mbir mi ci dëkkam la xewee waaye lenn nañ ko ci wax ay ata ngi nii ay ata ngi nii man Ansoumana Dione maa ngi artu maa ngi wax jëm ci sunu système de santé Abdoulaye Diouf Sarr nekk ci bopp bi la xewoon Louga ku ne gis na sàggante système de santé ay manquement wu système de santé ma demandé woon moom Abdoulaye Diouf Sarr mu tekki ndombol tànkam ku nekk dégg na tontu bi mu ci def nee moom du démissionné c'est parce que uniquement jàpp naa ne dafa motul kilifa kilifa bu taxaw ci télévision naan du ma démissionné kooku jàpp naa ne mosul kilifa su ma baat nag ci kaw li xew Tiwaawoon démb ñun dañu jóge Kaolack ci procès assistant infirmière boobu ci Kaolack yoon doon atte te ku nekk gis ne moom assistant infirmière boobu deful lenn comme sage femme yi nekkoon ca Louga booba kenn gisul Abdoulaye Diouf Sarr ci yoon bi la xamal ne hôpital bu Tivaouane lakk na ba ay xale ñàkk seen bakkan seen lim toll ci fukk ak benn muy loo xam te ni àdduna bi yëpp ñoo ko métitlu ñuy dellu di jàll njiitu réew mi Macky Sall di jàll xale général des Tidianes di jàll it képp ko xam ni sa mbokk loru na ci maanaam wéy juru xale yu tuut tànk yooyu noonu ngeen di jàll tax dëgg yàlla métit bi xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tax ñuy rafetlu lii nga xam te ni moom la président Macky Sall def tey jii muy dëkk ci benn deuil national gannaaw ñun ba ñu xëyee tey sakku ko waaye li am ba am mooy président Macky Sall yow la Sénégalais tànn tànn ñu Abdoulaye Diouf Sarr ñun li ñuy xaar ñun les acteurs de santé man Ousmane Dione Sénégal bo laaj tay lan lay wax moy Abdou Diouf Sarr nañ ko jëlee ci bopp ministère de la santé lolu mooy acte bu njëkk yo président Macky Sall boo war def pour defal njaboot ñu xamni ni ñoo loru ci mbir yi parce que mbir bu xewee da ngay jëf jëf kilifa président Macky Sall il faut Abdou Diouf Sarr mu jóge ci bopp ministère de la santé et de l'action sociale mënatul nekk ñëpp xam nañ ne moom xam na Abdoulaye Diouf Sarr moom xam na système de santé bi dara yittelul moom Abdoulaye Diouf Sarr ak ña mu àndal lu dul alalu ministère de la santé yàgg naa ko wax luubal nañu alalu ministère de la santé bi yëpp def seen ay poste tabax ci ay immeuble nañ ñu wax seen kër yooyu fan lañ ko jëlee ndax seen alal la du seen alal ay prime yu ñu yokkal seen bopp xoolal ca Matam naka la ab directeur di xeye ak conseil d'administration nga yok sa prime 000 ko un million amul top waaw ndax ñi and nañoo ñoko seen xel bi ministère de la santé ay milliards par at De yi di ko ci ay voyage ci ay séminaire ci ay mbir yo xamni yu tegul ci yoon askan bi mo ci di tabax ay hôpital hôpitaux yi ñu tabax yëpp da ciy sawar lool waaye la tax ñu ci sawar mooy alal gi ci amal seen bopp ñoom lan moo tax mënuñoo dooleel hôpitaux yi nga xam ni ñoo fi nekkoon ci wàllu matériel ci wàllu pep ci wàllu personnel li am nii bu fi Abdoulaye Diouf Sarr jógulee lu gën a yées lii dana amaat te askan bi duñ ko nangu waaw ñu ko nangu c'est pas possible loolu ay xale di dee à chaque fois ci ay hôpitaux booba temps ministre bi ak ñamu àndal ña ngay xool ñoom ak seen ay mbokk ak seen ay xarit naka la ñuy duufale seen ay poste Abdoulaye Diouf Sarr képp kuy xaritam képp kuy mbokkam dugal na la ci système de santé ci ay contrat yoo xam ne jàll ci yoon loolu ndax moo taxoon mu nekk ministre de la santé et de l'action sociale suma baat ci kaw déedéet suma baat ci kaw faluñu Abdoulaye Diouf Sarr pour muy dugal ay mbokkam ci système de santé bi boobu temps ay sage femme ay assistante infirmière ay infirmière ña ngay liggéey ci àll bi ay médecin ña ngay chômer amuñu liggéey jàng nañ ba noppi amuñu liggéey hôpitaux yi soxla leen ana moom moom Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi jël ay mbokkam di placer dans le système de santé nañu abal président Macky Sall il faut loolu ñu xam ko kàddu yi métti na waaye li xew moo ko waral il faut que nit ñi yeewu xam ne tey jii wér-gu-yaramu bi biñ ko caaxaanee ñun ñoo nekk système de santé bi pendant ñaar fukki at te amuñu ci dara utuñu ci dara yi nag lu dul askan bi seen wér yaram yàgg naa ko wax Abdoulaye Diouf Sarr mësuta yittewoo wér gu yaramu nit ñi ne bu doon loolu la ñu amee feebaru xel toppatoo na leen bu doon loolu la ñu amee euh, insuffisance ñu amee insuffisance endocrinale toppatoo na leen ak yeneen feebar yeneen feebar ak yeneen feebar waaye topp toppatoowul loolu Abdoulaye Diouf Sarr na nga koy woo boobu ba léegi nangu ma wuyu bu dégloo bataaxal bii bu amee fit na ma woo bu amee fit laa wax na ma woo leer nekkul leer na système bi wàcc na ko système de santé bi bàyyi na ab Diouf Sarr bëggatul Abdoulaye Diouf Sarr kon président Macky Sall il faut que nga jël décret ci li mu gën a gaawee nga wàccee Abdoulaye Diouf Sarr bu ko defee sénégalais yi xam ne yow la ñu dénk réew mi waaye dénkuñu ko Abdoulaye Diouf Sarr gis naa fan yële passé ñu bind Abdoulaye Diouf Sarr est-il est-il ndax Macky ko ragal Macky Sall ku ne xam ne ragalul déedéet ragalul waaye nag. Sa wou yon prezident Maksal, pou yon mou yon kalkle ay entere politik dedep. Kha wou yon eleksyon lejilatiz, sa wou yon nouvo guvernema pou Abadou Chav Diogazi. Mou som 16 milyon de Senegalese. Ben Senegalese pou mwenek mounifere la sante. Yon bonan. Te yi, te yi, te al chemes di. Wan yon moun am mounifere la sante pou bes. Moun chemne ki mwen, ki li pou mounifere la sante. Paske batiman moun mounifere la sante ki bo pwem. ministère bi ci boppam Abdoulaye Diouf Sarr toppatoowu ko boo demee ministère de la santé comme marché Sandaga jaaykat yi dañuy dugg di génn comme ni mu leen neexee ku mënta organiser sa kër ngay organiser système nga def ni yaa gën a yow nit ñi nga def ni yaa gën nit ñi sa lépp calcul Abdoulaye Diouf Sarr laa wax léppam laa wax pour moom xaalis la mën na jënd ñëpp xaalis am ñoo xam ne xaalis jëndu leen man Ansoumana Dione xaalis jënduma nañu toppatoo wér-gu-yaramu nit ñi sénégalais yi sonn nañu lii mënul wéy ay nit di faatu comme ay weñ bés bu jot gis nañ fi ki am feebaru xel ku faatu ci biir gouvernance bu kaw lag ba yaramam di yàqu ana Abdoulaye Sarr booba kan moo ko dégg mu wax waxul dëgg laa wax lépp lu mu wax ne euh, euh, mbiru wér-gu-yaram intéressé na ko waxul dëgg ay nekk Genève dagg sa voyage loolu mënul ñàkk amul sax wax parce que da ngay ñib si écouté wuloo sa voyage loolu du écouté mbir moo xew da ngaa war a dellu si waaye nag la nga war a nekk def mooy teg sa ndombol tànk loolu mu yëf kilifa waaye comme matoo kilifa doo kilifa yaa ko wax ba mu leer ne doo démissionné waaye nag mën na la dàq président Macky Sall dina la dàq wala askan bi dàqal la boppam yow Abdoulaye Diouf Sarr président Macky Sall dina la dàq wala ñun askan bi ñu dàq la ministère la santé parce que du ñu nangu lii di continuer di wéy mënul nekk su ma xol naqari na su ma xol naqari na may jégalu ci kàbb bi di masawu ñu ci lorule di masawu kilifa yi di masawu waa Tiwaawan waa Tiwaawan di leen di masawu kilifa yi fa nekk yëpp di masawu président Macky Sall di ko dolli di ko yeesalaat suñu jàll waaye di wax ne na wàccee Abdoulaye Diouf sar su fekkente ne askan bi moo ko fal su fekkente ne askan bi lay liggéeyal loolu il faut mu xam loolu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.